nekk ni ñu koy defee tey nag ni ngeen koy gisee ñu ngi fii si kër ki nga xamante ne nii moo di seex ñas Cheikh ñas nag di xale bu góor bi nga xamante ne nii dañu ko daal di faat eh, jamono yu ñu génn comme nag ñun waa Wassare ak ñun waa Dakar Midi saa su nekk comme ni ñu koy defee xew-xew bu amee rek dañuy daal di génn eh, gisee ñi nga xamante ne nii ñoom la naqar ak tiis bi dal daal di waxtaan ak ñoom comme nag am na kilifa bu ñu toogal nii dañu koy bàyyi rek mu daal di nuyoo bu ko defee ñu daal di dugg si waxtaan bi si kilifa gi nuyu naa la ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. yow lan nga ci Cheikh Niass. nijaayam la Aram Thiam sama mag la. est-ce ñu ñëwal ci li nga xamante ne nii noonu la histoire bi demee. waaw histoire bi ni mu demee euh, lu waroon a simple la lu wuroon yegg si fii la euh, boo xoolee xale bi liñ ko def mooy jaay doole lañ ko def ndax moom ay yeela ma ko yóbbu mais gone la euh, tayit lépp kayit wu mu ma wu mu laaj jox nañ ko ko ba mu des carte grise bi nga xam ne xale bi doon na ko jëli. bi mu ñëwee ñu xool lépp lépp mat waroon nañ koo mën a jël oto bi fourrière ko bàyyi ko mu ñibbi ndax bi mu ñëwee même pas yàggul jóge France ñëw fii. ñu pamte pamtee ko caxat caxatee ko ku mel na police boobu ñuy wax Yaya Mané euh, waaye dana xam ni moom ci boppam doomu Saalum la def noonu. te dana ko xam moom Yaya Mané dana xam ni Saalum la laal euh, maanaam kii di Cheikh ñas nga xam ne nii Aram Thiam mii di sunu mag moom rek la am ci doom ju góor doom ju góor at yee ñu paase magam bu jigéen Njaaña Niass moom tamit yàlla jël ko lu mel nii ñëwati dal ci kawam xam nga ne metti na waaye dañuy ñaan képp koo xam ne citoyen nga ngeen xam ne ni lii doomu si la te it loxoom dafa nekkoon ci kanam nekk ci ginnaaw ñi mu doon jàppale bare na trop li ñu yàq ci dëkk bi xamuñu nu mu toll ndax euh, Cheikh Niass euh, dundam gii ñu yemale fii ginnaaw yàlla yàq nañ lu bare ci dëkk bi euh, metti nañu trop ay mbokk ñi nga gis ñi ñi ñëpp ñii ñu ngi jógee fu sore ñëw fii toog am lu leen metti trop waaye li ma la bëgg a xamal mooy euh, bàyyiwuñu mu sedd incha allahu rabbi ki nga xam ne moo jëf-jëf jiit ñu ngi ñaan ci barke yaasin wal quraanil hakim yàlla na ko yàlla weer ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh euh, ay ay a toog. Cheikh Niass 39 ans la 39 ans la am euh, Cheikh Niass euh, dëkkul woon fii dëkk bu ñuy wax Ngiig Njaago la nekkoon Ngiig Njaago Saalum la foofu lañ nekkandoo depuis xale euh, muy koo xam ne nii amul benn problème xam ne ay nijaayam vocal yaa man yoo xam ne nii bis bu ni may neema ko sama nijaay nangam ak nangam sama nijaay nii sama nijaay ba group bi nga xam ne nii maamam bu góor ak maam bu jigéen la tijji barki dem boo njaay ñi nga gis ci ginnaaw ñëpp maire yi yëpp ñu ngi ci ginnaaw ñu ngi ci groupe bi mu ni woon nee na ma su ma jógee France ñëw sama oto lay taal kenn ku ni fa nga nekk danaa la fa fekk mbokk yi xamantul yëpp xamante xoolal xoolal projet boobu mu doon def xoolal liñ ñu liñ ñu liñ ñu yàqal nii ginnaaw yàlla. dajale njaboot ga ci booy bu ndaw ah ci booy bu ndaw mais li nga xam ne nii mooy moo dul yoon mooy nañu bàyyi koo xam ni euh, dañ koo gis xamuñu nu mu demee ñu ñëw di la pamte pamte ñoom daal bu ñu waxee benn ñaar ñu jël la la ci kaso bi ràpp tëj mais liñ ko jàppee dafa simple simple bàyyi woon ko mu dem ñibbi ca yaayam ñu régler li ñuy régler ndax xale bi indi na kayit yëpp mu xool ko ba mu nekk ko mu delloo ko xale bi. léegi moom ñu daal di koy caxat caxatee kenn xamul fu mu toll nii ba mu ñëwee ba léegi mënuñu koo teg bët am sa doom munoo koo teg bët. lu bare nekkoon ci loxoom mu doon dimbali ñu bare bare bare di dimbalu lu bare fu toll nii loolu lépp ñu xañ na ko. Cheikh Niass dencoon na soxna wala. am na soxna kay moom moo ñëw dem euh, samedi samedi la jógee France ñëw. pour ñu topp affaire bi moom ci boppam sax nee na bu fekkoon ñu suul ko dañ koy sulli pour topp action bi kon ci ci kàttanu yàlla noo jotaguñ ci mais ci kàttanu yàlla lii daañ ko topp ba foofu wala luñ ci yàlla jox ñu jël incha allahu rabbi. ñun ci ay woyu béy nañ ñu ne dee naturel la maanaam dafa dee naturellement. dee amu fi ndax Cheikh Niass boo déggee waa Paris li ñu wax maanaam ñoom moo leen gën a wér moom ci boppam ba mu ñëwee fii moo leen gën a wér. te xam nga comme li sama mag bii wax aram xam nga yow xolal xolal xolal xolal xolal ni mu demee nii maanaam lu ko basulu ñaar fukk laalu ko moom seex Niass dara laalu ko mais dafa tolloo xolal tey jii nga nekk fu mel ne bitim réew tànn euh, tàmm dund bitim réew ñëw fii ñu di la footar ñi di la caxat caxatee ci yenn pantre yoo xam ne nii yaa séromètre pantre yoo xam ne nii ku mel na moom. tam li ma lay xamal mooy xëy na sax dañuy def 39 ans mais Cheikh xale la. policiers yi jàkkaarloo ak ñoom bu ñu jàkkaarloo ak ñoom ak moom face à face da nga xam ne kii xale la xamul fu muy taxaw moom te noonu ngay gis ni la baaxee ni la man léppam mën na la ko jox toog amul benn problème moom amul benn problème moom daal def nañ ni leen neex xañ nañ ñu sunu doom yàlla nag moom ci boppam xadaaxte bi ku li seen ilman moom Cheikh Niass ñaata fan la def ci li nga xam ne moo di prison bi. ñetti fan tellement trois jours après je l'ai euh, tué décédé waaw. bi nga xamante ni moo ko pamti pamtee fan ngeen koy dégg su lu mujjee maa ngi dégg ci internet yi daal ñu ne xoma commandant bi xoma déplacé nañ ko waaye Yaya Mané moom jàpp naa turam parce que keroog bi ma déggee sama jarbaat bi julam yi muy wax Yaya Mané ci laa jàppi turam Yaya Mané moom moo andi lii moom lii lépp moo ko andi waaye nag dana xam ne indil na doomu Saalum lii doomu doomu Saalum la ko andil na ko affronté ci kàttanu yàlla waaw. non Cheikh euh, dafa nekkoon koo xam ne nii ay nijaayam ay nijaayam dafa leen a topp ba pare dafa leen di nemmeeku te bu waxee ba pare balaa wax ba bu waxee ba jeexal euh, day ree bu waxee ba wax ji jeex rek day ree boo meree sax mu xam ne mer nga moom ay ree la lay la lay indil euh, te it munoo fekk dëkk ba boo demee am na paa yoo sunu imaam ñun Cheikh ku jëndal frigo ay frigo yoo xam ne nii fu mu toll nii ci def glace. ca dëkk ba sunu ASC moom ci boppam da cee jàppoon ci loxoom bu dëgër ba bu coupe bi boo gisee photo bi am na photo boo xam ne mu ngi yor coupe bi nii sunu dëkk la ngig moo yoroon lépp di conseil di conseil di wax ci ASC bi nag ñun ñun ñun dafa mel nañ uh, waxuma la dakaar mais waa ngiig ñoo moom seex ñun ñoo ko ñàkk aram sax ñun ñoo ko gën a ñàkk seex waaye dafa metti ci koo xam ne nii kenn rek ku góor koo xam ne nii lu baree bare moom aram wérut mooy yaayam aram mi wérut waaye boo xoolee ah yàlla moom mi nga mi nga xam ne nii faxalun li maa yuridu te yàlla mooy ki nga xam ne nii moom moom lépp te it umpule woone imaam bi lim ci dox lépp yaa ngi dégg imaam bi dem na ba tardé juma rien que pour ñu baal seex mais yaayaa lànk carré ba yàgg yaayaa réer ci biir nit ñi réer na nag dana feeñ incha allah dana dana feeñ du da doon réer dana ah? déggu man de dégguma ko waaye nag dana bu réeree dana feeñ de waaw doomu Saalum la tooñ Saalum la tooñ de incha allah.